waaw jotaayu tey bi lu ko indi ci ci ñaari fànn lañ ko teg euh, bi ci jiitu nag mooy que ni dëgg naam xale yi ngiij santé ñoom ñëpp ngiij leen cosaanoo euh, te ñëpp ñëpp xam nañ ne ñu ngi bàyyi xel bu baax a baax seen cosaan loolu ndax jamono bu nekk ñi ngi def ay activité foofu waaye it nag dañoo sukkandiku ci euh, wax ju nga xam ne mag mu baax muy sama bay Amath Tall yàlla na ko yàlla yërëm taxarekal na yàgg nañu ko wax yàgg nañu soññ nañu nit fépp fu mu dëkk war naa fexe di fa yëngatu pour ñu ràññee ko fa. donc loolu moo gën a tax nag ñu ne mbas mii nga xam ne wàcc na ci àdduna bi dina jaadu waa Ngidj santé gannaaw ba ñu defee dara ci dëkk ba muy Ngidj fii nga xam ne aussi suñu gox la ñu am yëngatu bu ñu fi def pour que askan wi ñu dëkk ak xam ne ñoom tam bàyyi nañ leen xel. beneen bu ci des nag moo di que ni euh, waxtu wi ñu toll tembe jëm ci tabaski yi euh, dina jaadu ñu gën a ñaaxaat nit ñi pour que matuwaay yi nga xam ne moom la waa kër docteur jox nit ñi. gars yi gën koo sàmmanteeg moom ok macha allah loolu moom comme le ministre bu baax loolu moo doon li nga xam ne moom la ñëpp kuy liggéey kër docteur doon ñaan yàlla maanaam Sénégal gi yëpp nag ku nekk fa nga nekk fa nga toog nga defee ko tabaski waaye ñëpp xam nañ ne loolu jafe-jafe la kon nag li ci des léegi mooy comme li président wax ñu fexe ba dëkk feebar bi léegi nag loolu matuwaay bu ñu ciy jël pour mën a gungee askan wi mooy ko ni d'abord askan wi ñoom seen bopp xam ne feebar bi lu am la il faut nit ñi dugal seen bopp na feebar bi mi ngi fi lu nekk la ñaareel ba moo di que ni feebar bi kenn amu ci xam-xam amul gul dara lu koy faj kon ñetteel bi ci des mooy jël ay matuwaay rek moo ci des matuwaay yooyu nag mooy ñi nga xam ne ñu ngi tukki tey nar a dem dëkk ba ñoom ñëpp ku ciy dem na nga fexe oto ba ñuy dugg di jëm dëkk ba na ñëpp takk seen i masque bu ñu wàccee dëkk ba it lépp lu mën a xew muy jumaaja muy feneen ku fa nekk na nga takk say masque te ñu may seen bopp distance maanaam di dandante ca biir jumaaja wala feneen mais aussi ñu faral di raxasoo suñuy loxo ndox ak saabu dara gënu la yées li nga xam ne tey ci tey médecin yaa ngi nii timma tubaab yi loolu ñu wax ne maladies yu bëri en Afrique c'est des maladies à main sale maanaam feebar yu bëri yu ñu gis Afrique dara waralu ko lu may salte je crois que loolu Afrique war na koo mën a dépassé kon feebar bi dafa ñëw rek pour fàttali ñu yeneen yi waxam xam dañu koo bàyyi woon ci gannaaw kon nag matuwaay bu ñuy jox nit ñi mooy tabaski gaa ngi ñëw bu ñu jël feet bi jiital ko ba tax ñu nasaxal feebar bi mu ñëw di ñu ëllëg nañ jël matuwaay ñu jël yëpp nañuy takk suñuy masque fépp fu ñuy dem bu ñëwee nañu raxas seen loxo ndox ak saabu nañuy seet xale yu baax nañuy toppatoo mag ñi masque yi daal moom nañ ñëpp fu waay mën a dem comme ni ko pays yëpp dafay léegi nam port de masque obligatoire ñun ngiij dañ ne dina war a wax ne képp kuy dugg biir ngiij da ngaa war a takk masque par force kenn mun laa tere na nga dem waaye nag loolu moom war nañ koo mën a ñaan nit ñi képp kuy dem dëkk ba nar a tabaski ji sooy dem nanga nga gànnaayoo sa masque gànnaayoo sa gel te jamono bu nekk ngay bàyyi xel di raxasoo sa loxo ndox ak saabu man man wax naa ne ñi ñuy wax loolu nee naa au moins bu dul it ñoom dañ jàpp ne tey egg nañ ci ndaw ba am doole mais ñoom yóbbuñ seen bopp ci ndaw dafa am ñu nga xam ne ñoo leen fàggul ndaw googu ñoo leen ko toppatool ba ñoom ñu jot ci danga daan feebar mais sa yaay di la di la yóbbu fu nekk di daw fu nekk pour rek nga bañ a feebar lépp feebar bu mu yëg mu dawalee la fa buñ ne fee dafa am nga sax du la fa yóbbu kon tey dina jaadu ñun tamit même suñu gëmul li nga xam ne moom la ñuy wax mais ñu fexe ba suñu yaay yeeg suñu papa yi nekk ci kër yi feebar boobu duñ ci jot ñu delloo naar ndax loolu lañ mën a fayee mag ñi waaye mënuñoo fayee mag ñi ne parce que man attan naa feebar bi rek man su ma neexee mën naa dox fu ma neex su ma paree ñibbi kër ga soo demee maintenant sa papa wala sa yaay feebar loolu loolu diina nangu ko kenn xamul lan la donc ndaw ñi nañ jàpp na ñoom même su fekkente ne feebar bi ñoom jàpp nañ ne ñoom mucc nañ ci mais dans dix an danañ xam ne lii ñu leen di wax amoon na ndax feebar yii message yi sama gannaaw am na feebar yu bëri yoo xam ne buñ duggee doomu jàngoro ne bu la duggee bu xoolee ne yaa doole moom mën naa tëdd la xaar bis bu demee ba xam ne nag léegi moom moo la ëpp doole bu keroogee mu yee la te bu keroogee fin na juddu kon nag ndaw ñi buñ jàpp rek na parce que affaire bi dalagu leen wala dalagul seen papa rek affaire bi amut déedéet nañ jàpp na lu ñuy wax day mateeg du mattee du ma ko jox sama loxo ñoom daal nañ jàpp ne rek feebar bi am na loolu foofu la avantage nekkee weddi moom du la may xam-xam weddi du la may xam-xam donc nan nangu ba pare jëfee li nga xam ne moom la nit ñi wax su ko defee rek dangeen dimbale mag ñi incha allah waaw ci xam naa danaa tàggu rek moom mi nekk sama gannaaw loolu moom xëy na moom la moom la cëram pour mu déclarer loolu mais xëy na peut être comme xas naa ba jël micro bi dinaa ci wax mais bëri na ay perspectives yu nekk ci kanam yu nga xam ne ngi santé incha allah dinañ ko bokk na ci fii gox bii ñu nekk tey tey war nañ fee mën a def don gox bii ñu nekk fii Ndiolofène Ndiarème Limamou Laye war nañ fee mën a def lu ñuy tuddee don de sang loolu moom lu ñuy waaj la lu nga xam ne danañ ko def ndax it Euh, consultation euh, gratuite yi tamit mëntuñ ko def ndax kenn bëggutul fu nit ñi dajaloo ndax kon sax prévoir mais lu mu bon bon don de sang moom danañ ko fi mën a def mais dana am aussi ay lël yu nga xam ne danañ ko fi def pour gën di yee askan wi ci feebar yu nga xam ne comme feebar yu mel ni covid 19 bi rek la yu nga xam ne xëy na peut bu ñu ci yee askan wi lu bëree bëri dana dem ba ñun dootu jaadu sax ñuy ñëw di waxtaan ndax ku nekk da nga xam matuwaay bi nga war a jël ba feebar bi mën ba laa bañ a dal mais yooyu xam naa ne président dana ci gën a dugg ëllëg incha allah bu bu ñu ko temps bi mayee su ko defee nga xam personne mais daal en tout cas jàpp nañ ki fan bu ñu tabaskee pare bu ñu fiy dellusiwaat don de sang bu mag lañ fi bëgg a def pour dimbale centre de transfusion sanguine bu nga xam ne professeur Macoro Gadj fa lay liggéeyee te boobaa xam naa ne loolu dana ko neex bu di sant di gërëm waa Njaareem Limaamu Laay di sant aussi xale yi ngi santé vraiment ñoom ñu nga xam ne tey ñoom ñëpp ku ci nekk amoon nga tey foo war a liggéey mais nga bàyyi ko ñëw teew pour lan pour jàppale seen askan di leen wax nag ne ngiiñ nag moom man ak keneen ak keneen ci bokk yam lépp lu ci waay def rek na jàpp na boppam la defal amul dara lu ñuy rëccu man dinaa sàcc rek wax leen benn anecdote moo xam ne man dama koo dund boobu kon su ma su ma ciy yëngatu bu jaaxal kenn man damaa tëju ci nekk te li may wax ramataali ngi toog man damaa tëju ci nekk te li may wax it Baba Ndiaye ak may dégg Ibaam Baba Gaaj Makoro Gaaj ak may dégg xaalitaal ak may dégg ki ñu yaakaar alaaji moo rox gaaci xan nu ko yàlla yokk leer tëj ñu ci néeg nañu maa ngi leen di xamal ne dëkk bii lépp lu fa waay def baax mën nga ko defal lépp lu waay def sa mën nga koy diggaaleeg loolu nag doy na si message